man yàlla li mu ma may bariwul kum ko may te maa ngi ciy sant suñu boroom ak samay waajur xale yi téléphone la na am man ma am téléphone télé caméra xale yi benn bëccëg la ñuy am man góor góorgóorlu naa ba Youssou Ndour jox ma juróom-ñaari bëccëg lundi mardi mercredi ba jeudi dimaas heure bu ma neex liggéey kon man duma waxantu ku ma ne baax nga baax nga te ku ma àndal ku baax nga barki Cheikhul Khadim damay ñaan ñi fi daje ñëpp yàlla na yàlla fay leen di ñaanal samay mbokki bopp di ñaanal sama jëkkër ji nga xam ni li ma ci namm rek laa bëgg yàlla defal ma ko ci parce que mënatuma di wax di wax di wax li ma ci namm suñ boroom xam na ko yàlla na ma ko ci yàlla defal ci barki Seydina Muhammad ndax ba muy ñëw soxla woon naa ko torop li tax ma naan kii mooy Niclaire Fall moom xam na man xam naa yàlla xam na parce que période bi muy ñëw guerre la ñëwee moo tax mu tuddee ko bomb te bomb ku ko am ci guerre rey ci nit.

2018 la ba tey sama digganteeg moom nag aw ma dara lu ma ci naxari euh, Amina ba ma koy xam boobu sama tur dem na ba pare. mu wër ma ba gis ma waaye ba ma ko xamee ba tey ñu dalu liggéey ba tey euh, dëgg la sama tur demoon na de ba ñëpp xam ma xam kuy Amélia xam ne Sacré Cœur bi laa nekk di fa béy waar di fa liggéey sama liggéey bi fonk ko lool nag. bu mu ñëwee ma commencé dam tàmbali liggéey ak moom dëgg la sama tuur sori woon na waaye jëlee na sama liggéey ci zéro yóbbu ko ci cent et je suis fière de le dire fierté la aussi tey ma di ko wax ndaxte sama liggéey gën na ko fësal tey nag boo gisee ma naru ma wax sax de mais sànq ba tey sama snap mu ngi bëggee ay nit di ma wax ci euh, digganteem ak euh, soxna si naan ma naa ci dox jàmm te yàlla mi tamit xam ne maa ngi dox jàmm parce que Viviane ñu ñëpp lay liggéeyal Mor day liggéey yow di liggéey ak Njole di liggéey ak man mu nekk ku ma fonk lool ku ma respecté ndaxte liggéeyal na Sénégal euh, li mu def Sénégal kenn lam laameetu ko di ñaan euh, sam digganteem ak Amina bu ngeen ma ci mënee jàppale ngeen jàppale ma ci ñu dox mbokk ñu dox ko ba mu sotti parce que cofeel bi Amina am ci Viviane man ump ma respect bi mu am ci Viviane ump ma seytaane dafa bëri doole nag seytaane bëri na doole. wuyu ma foofu waaw maa ngi ñëw. wuyu ko wuyu ko rek wuyu ko. waaw dafa ñaan. mais ah, dama maa ngi. nee woon wax. ci ci dagg bi mais c'est une boo xam ne man je l'ai souhaité wax naa ak moom ba pare ci affaire boobu man dama ñëw pour yokk ñëw ma pour wàññi. so um, danañ juboo incha allah. kon ku bëgg nga ko man lii laa bëgg ci ay nit gis nit wax sa baaxu moroom du yàq sa baaxu dara sa baax yow dara nest te dangeen wax ni fii yéen ñëpp dangeen yàgg ànd affaire yooyu xam nga piis rek jàmm rek comprendre nga lépp loo xam ne dafay yàq nit mun ko defar boo ko defaree di ci am yàlla dañ la ci naw yaa ngi comprendre fii amul géer amul géwél amul booy yi nii grand yi nii ñëpp benn lañ gis nga ñuy yore ay téléphone tey dina ci am koo xam ne yàlla dina ko dimbali mu am télé lu leer laa lay wax nii gis nga ki gën a tuuti fee toog di def benn affaire di ci gis boppam ah yàlla dina ci dimbali nit dans deux ans trois ans mu ne fiif est-ce que xam nga dem la yàlla moo yor wërsëgam di ko jox ki ko neex gis man bi may jóge fii maa ngi maa dund di tedd ma dem Amérique mais dama ko gëmoon mu nekk sama ambition lu ma bëgg teg sama bët foo xam ne ñi ma fekk si dëkk bi ñu juddu fa li ñuy yore laay dem poqati te yàlla dimbale na ma ci namu dara namu ma xaalis namu ma or namu ma oto bu rafet fii dara Sénégal li fi am nii ay game la xam nga game ñii dañuy play ñii di play gars yi kii nii fii affaire yooyu gis nga fële ah foofu mooy réalité bi réalité bi mooy loo fa jaay gis ko ko jënd minit amul xaar boo fa jaayee rafet gis ku la gën a rafet boo fa jaayee ñaaw gis ku la gën a ñaaw muy maanaam looy doxal minute nit romb la ni la maaloo mën fekk xolal da koy gis ak téléphone mu taxaw ni téléphone di caméra wala di filmer nga def yorul dara mën na la jënd moo tax gis nga ngi noonu nit doo xeeb sa morom quoi ci gàttal bu dara yàqoo dañ koy defar man Malick man Malick Fall man ma kenn mun a ànd ak ku nekk mais dama xam sama bopp xam fi ma jóge xam fi ma jëm xam may kan man du ma tux man du naan am naa leen moyens mun naa def lu ma neex ci àddina fi ma toll nii du ma ñàkk ba may dee yàlla dimbali na ba pare mais doxewuma ko jëfewuma ko su ma nekkee sama kër kilot laay sol t-shirt nekk ak nit ñi ci mbedd bi sama doom mën nañ ma seede parce que falaa màggee falaa yaro ak ñoom bëgguma ñuy gis yenn yi defe ne man damay ñëw jaay leen maanaa d'accord nag sama kër am na ay sécurité garde xam nga yaa ma gën a xam mais pour protéger sama njaboot la parce que man nekkuma fa gis nga nit day xool xam ni fii yaakaar na fi dara mu dem toj ko donc dama leen di protéger mais gis nga li nga def nii yàlla na ci yàlla fayan ah. yàlla na ci yàlla defal yiw ak succès bi nga ci bëgg avant kontaan ci jëf ji ngay jëf ne yàlla dina ko eggale. te mébét boobu nga eggale. loo xam ne moom wax nañu ko téléphone mu am mébét boobu ci diggante Amina Poté ak Viviane ndax ku ne xam na ne Amina Poté mi Viviane ay bakkanam xam nga dañuy waxal yàlla rek comme nit ñi toog nañu ku nekk xam na ne Amina mii Viviane ay bakkanam ci lu ñu fekkee Viviane it bañul Amina Poté mii da koo bëgg seytaane fu mu xaju rek lay dugg yàlla mi mën a boole yàlla na leen boole waat ci kàttanu yàlla ñu ànd ci bi ànd rafetee ndax ñaar ñu bëggante rek nooy réeroo te yow lii nga mébét ni Amélia bugguma woon tëb tëb wax ko nii te tombeek laajuma kii laajuma kii waaye moom mii junj na ko ci téléphone te xam na na loolu bala moo génn dëkk bi dina ko dox. bëkk dem leen gis ngay liggéey ak Viviane du dëgg. waaw tey ñu gis kër Amina donc nitu Viviane nitu Amina la. nitu Amina nitu Viviane la du dëgg. dëgg xam nga lu indi woon looloo. Mhm. liggéey man métier bi <laughs>